liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf nañ ko yëkkati moom laal suuf nañ ko yëkkati bu la jëm jëmul xarit bis bi la jëm kon nag jërë ngeen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf